mbokki Sénégal askanu Sénégal ginnaaw bu ma leen nuyoo di am mbégte dellusi fii seen kanam ngir waxtaanee ci actualité bi nga xam ni moo xew ci politique ci Sénégal mooy tànneef bi nga xam ni moom la waroon a tànn candidat bi war a jongante ci élection présidentielle 2024 muy war a nekk mbërum benn Bokk Yaakaar yàlla def na ñun danoo jëloon président Macky Sall def ko sunu candidat ñun ñoo ko investiroon le 20 décembre deux liñ ci jublu woon mooy mu defaat beneen quinquennat waaye yàlla dogalu ko ci sañ-sañam ak ci bëgg-bëgg président Macky Sall mu génn ci loolu donte yoon may na ko waaye bëgg jàmm Sénégal ak xalaat boppam ak respecté kàddoom moo tax ak bëgg réew mu doxale noonu kon nag bis bi nga xamante ni le 28 février la woon le 28 juillet 2023 bii bi may joxee financement yi nga xam moom laa jagleel euh, jigéenu alliance wàllu askan wi di ci sargalaale woon docteur Djibi Sarr bis boobee ci laa waxee woon ni candidat bi nga xam ni moom lañ war a tànn ci sama xalaat moo di premier ministre joxe woon naa xalaat boobu wax ni moo war a nekk suñu plan A sunu palan B sunu plan C A mooy Amadou B mooy Ba te kenn du am Amadou di ko fi ba C mooy le chef du gouvernement D moom mooy le Dakar waa ndax Dakar soxla na ko donc na ma ko xalaate woon digle ko noonu yàlla suturaal nañu ba noonu la ko président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar xalaatee doxe ko noonu kon nag ci loolu dañ ci sant président Macky Sall di ci sant Benno Bokk Yaakaar ginnaaw loolu nag li am solo mooy Amadou Ba le premier ministre Amadou Ba am na profil bi am na xarañte gi am na yar bi am na teggin bi am na sutura bi ngir mën a yenu Sénégal jëmee ko fan ko jëmee ndax mu mën a continuer plan Sénégal émergent bi nga xam ni moom la fi président Macky Sall tracé tam am solo lool wala jële Sénégal fii mu nekk jëme ko ci yoonu développement kon loolu candidat boobu ñun ñu ngi ci ànd ak moom sans condition waaye nag yamuñ ci loolu suñu xalaat danoo yàpp ni moom président euh, bi nga xamante ni nii moom lañ war a fal suñ ko falee muy Amadou Ba incha allah rabi au premier tour su boobaa li mu war a njëkk a def moo di boole Benno Bokk Yaakaar yépp maanaam bu nee bee bi la moom day def bébé bi mooy boole ak boot Benno Bokk Yaakaar loolu mooy li war a njëkk a def waaye nag bu loolu lépp amee bu ndam amee leneen li ci des mooy war na am équipe boo xam ne TP lañ koy wax dañ sax ku daan def euh, di jàng dara sax danaa defal travaux pratiques TP waaye TP bi moom ci politique bi ci Sénégal li mu war a def mooy ànd ak ay technocrate ak ay politique ànd ak ay technocrate ngir ñu liggéey ni ñu war a liggéeyee plan Sénégal émergent bi ànd ak ay politique ngir war a gérer lépp luy démocratie sénégalais ak lépp luy crise politique ak ay avantages yoo xam ni stratégie yëpp war nañ ko mën a teg ndax loolu mënul ñàkk kon équipe TP mënul ñàkk su ndam amee ci président mu ànd ak accompagner président Amadou Ba ñi ngi jaajëfal nag képp koo xamante ni nii nekk nga benn Bokk Yaakaar muy parti yeeg mouvement yi ak président Macky Sall ak ñi ko composé ñu leen wax ni leen président Amadou Ba bawul fen bawul kenn ñëpp lay boole Amadou Ba duma ba du ba waa Thiès du ba waa Sénégal du ba waa Sénégal yi Sénégalais yi nekk ci diaspora bi kon nan jàpp ni fi nu toll nii moo di ne ñëpp laxasaayu xam ni comme ni ko suñu mbokk Russie di waxee ñett saduna zat abeda sa nami moo di pas de pas en arrière la victoire sera en nous amul deltu ginnaaw te kanam rek tànki kanam ngir ndam am man sama wàllu bopp nag dinaa leen xamal ni leen fii nga xam ni fi laa nekk ci Thiès man Ousmane Diop président alliance wallu askan wi dinaa politique dinaa liggéey dinaa social te dinaa xeex ngir président Amadou Ba am ndam fii ci Thiès am ndam ci Sénégal am ndam ci bitim réew Benno Bokk Yaakaar am ndam muy ndamu Sénégal jërë ngeen jëf